yéen ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi subhaanaka allahumma laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim allahumma allimna ma yanfacuna wanfacna bima allamtana wa zidna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu santaat borom bi subhaanahu wa taala ci ndimbalam ñuy defal ñuy jàngat sunu mbiru diine ñun ci yàlla defal tawfiq ñun ci yàlla defal tawfiq mel na ñu ngi woon ci bunt bii di buntum njàpp jëloon nañ faratay njàpp jëloon nañ sunnay njàpp am ay masala yoo xam ne dafa aju ci loolu ñu fas ko yéene jukki tey insha allah taala kon ñu tàmbale ci wa man nasiya fardan min aadaihi loolu la ñu war a tàmbale wa man nasiya ku fàtte fardan farata min aadaihi ci ay cëri njàppam fàtte ak cër boo xam ne ni farata la muy fàtte koo raxas kooku fa in tadakkarahu bu ko fàttalikoo bil qurbi ci lu jege mooy bu fekkee teel na ko fàttaliku jege nag mooy maanaam njàpp li wowagul njàpp li wowagul loolu itam dañ ci sóoraale aleykum salaam wa rahmatulah jamono sedd ak jamono tàngaay aleykum salaam dañ ko ci sóoraale waaye daal xel xam na lu lu jege ak lu jegewul aleykum salaam bu fekkee teel na ko fàttaliku faalahu na ko def wa ma baadahu ak la ca gannaawam la ca toog da doon jàpp am lu mu fàtte farata bu mu fàtte ci misaal fàtte na sëlmu sëlmu gisoon nañ ci bi ñu jàng njàpp gisoon nañ ne sëlmu lan la farata la maaleykum salaam raxas kanam farata la ci njàpp muy jàpp fàtte ko dem ba raxas tànkam rek walla ba raxas tànkam ba pare sax ba jàpp na ba pare ay jóg ñu i eh, man de moo xam moo ko fàttaliku moo xam dañ ko wax ne yow sëlmu wala sa kanam gaa ngi foofu mu wextal nu muy def teel na ko fàttaliku wala teel ko fàttaliku teel na ko fàttaliku kooku dañ naan ko dellul farata jooju nga fàttaliku woon nga def ko ba pare la ca toppaat lépp danga koy defaat faalahu na ko def wama baadahu ak la ca topp la ca gannaawam kon day mel ni kon farata boobu mu fàtte woon dafa mel ne ci la toll léegi da koy def tam continuer fa jàpp ma mu lam defoon daf koy defaat loolu mooy bu fekkente ne teel na koo fàttaliku wa in taala bu yàggee nag mooy kon yeex na koo fàttaliku mën naa am sax julli na ci ba pare julli na ci ba pare doo koo fàttaliku yàgg na daal bu boobaa faalahu na ko def moom waxdahu moom dong loolee mu fàtte woon moom dong lay dem defi waaye nag bu fekkee julli woon na fi jotoon na fee julli avant mu koy defar wa aada na baamu ma salla la mu julli woon qablahu njëkk mu koy defar dafa fàtte woon a sëlmu bi ñu koy fàttaliku fekk na yàgg na yeex na ko fàttaliku bu fekkee yeex na ko fàttaliku rek defaat li ci topp du ko ci fekk cër boobu mu fàtte woon lay dem defari ko pare ci bu fekkoon mu jot fee julli nag avant mu koy defar day baamu loolee mu ko julli woon lu tax lu tax dafa bàyyi farate kon njàpp li matul jàpp lu matul mu ne su coo julli kon julli gëm ci jotoon a julli julli ga baaxul ki julli ci njàpp lu motul moo ki julli te jàppul ñoo yam julli ga baaxul boobu leer na wa in taraka bu fekkee dafa bàyyi nag sunnatan sunna jàng nañ sunna yi ba tey bu fekkee sunna la bàyyi faalaha na ko def waaye wala yuidu te du baamu assalaata julli ga bu fekkoonte ne tey da doon jàpp fàtte galaxndiko masalan fàtte galaxndiko dem na lu yàgg faat ni eh man de bi may julli bi may jàpp galax lu ñu koy sant demal nga galax ndiko ci bu koy def da yéene ci njàpp la la bokk waaye jotoon na fee julli julli ga ndax wér na wér na bu ko baax bu ko julliwaat kon wala yuidu te du baamu assalaata julli ga mhm. wa man nasiya ku fàtte yii danañ ko laaj de incha allah wa man nasiya ku fàtte lumatan ab deneer deneer deneer mooy ab digg bu tooyut loolu mooy deneer ku ko fàtte man da doon am ñoo xam njàpp xañ dañuy gaawante yooyu moo tax njàpp moom tenkoñ la laaj tenkoñ teey lu ko def ndànk loolu la laaj bàyyi xel cër yépp mu tooy waaleykum salaam wa rahmatullah wa man nasiya ku fàtte lumatan ab deneer xasalaha na ko raxas waxdaha moom dong bi niyatin waaye nag day ànd ak yéene yéene ne lii njàpp lu matul woon la lii may raxas dama koy raxas mu mot li jàpp la wa in salla bu fekkonte ne bu fekkee jotoon naa julli xabla daalika lu njëkk loolu lu njëkk lan lu njëkk mu koy defar aada na baamu julli bi ndax njàpp la matul kon julli na te julli na ci njàpp lu matul dafa mel ne ko julli te jàppul doonte nag xamu ci dara bàkkaar du ko ci war uh-huh. wa man tadakkara ku fàttaliku almadmadata galaxndiku wal istinshaqa ak seraxndiku dafa fàtte galaxndiku fàtte seraxndiku mu fàttaliku ko kañ baada an sharaa gannaaw ba mu duggee fil waj yi ci kanam gannaaw bi mu tàmbalee sëlm ci la fàttaliku ne eh man de galaxndiku ma de ah, saraxndiku ma man de nañ lan mooy galaxndiku lan mooy saraxndiku mu dem na ba commencé sël mu xelam dem ci ne moom day galaxndiku wut moo tax baada an sharaa gannaaw ba duggee fil waj yi ci raxas kanam ga gannaaw bi mu commencé raxas kanamam la ko fàttaliku. fala yarjiu du dellu ilayhima ci ñaar yooyu mu fàtte woon muy galaxndiku ak saraxndiku du ca dellu day continuer du ca dellu xatta yu timma ba ba muy matal wudu ahu njàppam nu continuer njàppam ba mat mu doog a galaxndiku saraxndiku mu jeex waaye du dagg njàpp mi naan day dellu gannaaw lu tax dugg sëlmu lan la raxas kanam lan la farata galaxndikoo saraxndiku lan la kenn du jóge ci farata di dellu ngir sunna di dellu gannaaw ngir sunna kenn du jóge ci farata dugg ci farata ba pare di ko fa bàyyi booy bàyyi dara day fekk la ngay jàppi moo ëpp doole li ngay li ngay bàyyi wala mu yàpp waaye doo bàyyi dara ngir di dellu di di wuti loo xam ne nii la ngay bàyyee la nga bàyyee ko ëpp doole déedéet kon comme que dugg nga ci farata ji ba pare continuer sa njàpp bu paree nga dem nga galaxndiku saraxndiku jàpp la mat na dara sikku ca wa fadailuhu kon yii yu aju woon la ci ay masala woon yu aju ci hmm, liñ jot a jàll muy faratay njàpp ak sunnay njàpp muy bëgg a ñëw ci wax la ngëneeli njàpp ngëneel daa féete suuf sunna ngëneel daa féete suuf sunna maanaam dafa bokk ci yiy rafetal jëf ji nga xam ne nii def ko day tax nit ki am tuyaaba day tax jëfam gëna rafet donte ne bu ko bàyyee du yàq dara waaye nag bañ koo bàyyi mooy la jaadu wa fadailuhu ay ngëneelam moom njàpp mooy yii muy bëgg a lim at tasmiyatu mooy wax bismillah gis nga nit ki ab jullit lépp lu muy def na tàmbali buy tàmbali na wax bismillah bismillah buy lekk gis nga téere bi ba ñu tàmbalee bisimilahi lañ commencé woon borom téere bi ba muy bind bisimilahi la commencé nit ki lu muy tàmbali jullit bi lu muy def lu nekk ne ko tàmbalee bisimilah. ndegem ndegem ndegem wanag douche toilette lañ la ne la bala dugg na nga wax leneen taxul ñuy wax nit ki lu muy def ne ko tàmbalee bisimilah buy lekk na tàmbalee bisimilah buy naan na tàmbalee bisimilah buy jàng na tàmbalee bisimilah buy tëdd ci lalam na na bisimilah doo buy sol yéreem na ne bismillah buy summi yéreem na ne bismillah yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne li dox diggante bëti jinne yi ak awray doomu aadama buy summeeku mooy bismillah bu ko waxee mënuñu ko mënutuñ ko xool amatuñu accès ci moom waaye bu ko waxul na jàpp ne ñu ngi ne jàkk di ko xool muy summeeku muy summeeku nit wax bis na wax bismillah buy sol yéreem buy sol dàllam lu muy def na wax bismillah buy toog buy lu muy def na wax bismillah kon rawatina jàmm yàlla yi buy jàpp na wax bismillah ca ba muy tàmbale wasiwaaku ak soccu soccu yonent bi dafa ne bu ma bu ma bañul woon a teg sama xeet wi coono de danaa leen digal saa bu ñuy jàpp nañ soccu loolu boo ko déggee rek nga xam ne lii daal comme que yonent bi sopp na ko naa ko fonk moo tax ñu ngëneel la comme yonent bi sopp na ko rek ngëneel la bañoon bañ leen teg coono moo tax bañ ñoo teg coono moo tax eh, farataaluñ ko digaluñu ko bu ñu bu ko digale woon ne dee leen ko def day daal doon farata waaye loolu mën naa am dana diis te lislaam ñëwul pour diisal ñëwul pour diisal lu mu tege rek lu ñu mën la lu mu tege rek lu ñu attan la lu ñu lu mu tege rek lu jàppandi la ci ñun moo tax lépp luy lu diis rek moo tax diine ji boo yëgee ne boo yëgee xat-xat wala diis diis rek xamal ne da nga caa boole lu ci bokkul waaye yàlla moom fi mu jaarloo fépp a jàppandi ci ñu fa jaarloo bu demee ba mu të xamal ni da caa boole lu ci bokkul wala da nga koo defee nu ñu la ko waxee wut bu boobaa nag moom xoolaatal yëf yi. léeg-léeg nga gis loo xam ne nii diis na lool diis na lool léeg-léeg nga gis loo xam ne wax dëgg yàlla diis na lool ki koy def da ciy loru keneen di ca loru ki koy def da ciy loru tudd yàlla tudd yàlla ni mu yombe yàlla ne fadkurullaha qiyaaman wa qu'udan wa ala junubikum leen tudd yàlla moo xam da ngeen taxaw moo tax dangeen a toog moo xam da ngeen tëdd tudd yàlla ni mu yombe bu ci bu ci bu ci ŋàlliku naree am ak takki rajo leneen la ba ñi nga dendal dootuñ nelaw leneen la wàcc nga fiñ la jaar loxoon leen léegi gisoo ni mën naa am yaa ngi dend koo xam ne mi ngi feebar nelaw të ko mu dem bay gëmmu bët nga ne ràllet ci kaw nga gis koo xam ne nii mu ngi sonn journée bi yëpp dafa yendoo liggéey boo matul ñëw bëgg a wéer ak wetam pour noppalu rek doo ko may jàmm léegi léeg nga gis koo xam ne nii léeg-léeg waxuma la dara waaye ay nit sax bu ñu toogoon bëgg a waxtaan duñ mën a waxtaan ndax liy yuuxu ci seen wet léeg-léeg bu ñu la woowoon téléphone doo mën a wuyu ndax ki lay ki nga ki ngay waxanteel du la dégg keneen lay dégg te kooku ne day tudd yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga nu mu def dafa ñëw ci jàkka ji fekk saxaaba yi kee toog fee kee toog fee kee toog fee ku nekk talal sa loxo di di di di wax ca kaw di ñaan seen borom yonent bi ne dal dal leen ki ngeen di woo tëxul absenté wul moo leen gën a jege seen bopp yéen na kenn ku nekk wàccee baatam te bu kenn déranger moroomam kooku kay xanaa jàngale na ba pare gis nga laa ilaha illallah moo gën ci lu ñu tuddee yàlla benn araf boo xam ne nii ay tuñ da cee am da ci participer nekku ci araf yi ko composé yépp li ñu tuddee xarf safawi nekku ci maanaam araf boo xam ne boo koy tudd say tu say tuñ day yëngutu amut ci laa ilaha illallah moo tax nit ki mën naa toog sa kanam di ko wax téeméer yoon doo yëg ne mi ngi wax leneen taxul ñuy wax laa ilaha illallah nit ki mën naa toog ci sa kanam di ko répété téeméer yoon doo xam ne mi ngi wax parce que aw lamiñam kese mooy wax yoon ay tuñam du ci yëngutu nga nar takk rajo lu sooy tuñ dul yëngutu nga nar cee takk ay ay ubaar la bu boobaa leneen la waaye moo tax daal nañ xoolaat nañ xoolaat maanaam diine ak folklooru diine daal bu ñu leen séparé woon diine ji dañuy gis ni ndekete lu jàppandi la ndekete lu jàppandi la yàlla dafa ne wama jaala aleykum fi diini min xaraj yàlla diine ji mu leen indil defu ci lenn lu leen di xatal defu ci lenn lu leen di diisal lépp a jàppandi ci yéen kon bu demee ba am problème ci pratique bi rek xoolal ni nga koy defee ndax noonu la wala li nga jël ne moom ngay def diine la ndax noonu ndax moom la <coughs> yu ci baree bari nag ñu ñun lay dellu kon was ak soccu soccu dañoo bëgg nit ki bu ñëwee ba bay jàpp mu soccu ba noppi fi mu ñëwee ba toog nar a jàpp na soccu ba noppi raxasub soccoom galax ndiku commence a jàpp loolu lañ bëgg bu boobaa bu defee noonu bu agsee ci galax du du du jaf du jar muy jëfandikoo baaraamam waaleykum salaam du jar bu boobaa du jar muy jëfandikoo baaraamam ngir galax ndi ko déedéet parce que socc na ba noppi dooga bi muy jàpp socc na ba noppi raxas soccam denc commencé jàpp muy jàpp bu boobaa bu agsee ci di jàpp mën naa boole galax ak serax ndiku bu tànqee benn yoon galax la ca des mu serax ko galax ndiku yàbbi la ca des mu serax ko deuxième fois troisième fois noonu yoonu loxo nekkatu ca yoonu baaraam buy dugg ci gémmiñ nekkatu ca bu fekkente ne jàpp na ba noppi ñu ne sang kii na ba noppi euh, socc na ba noppi ñu ne bu fekkente ne nag soccuwul bu boobaa mën naa jëfandikoo baaraamam ngir mu remplacer socc boobu looloo tax ñuy jëfandikoo kii galaxndiku di jëfandikoo baaraamam aleykum salaam wa kon loolu ngëneel la wa zaidu ak la dolliku alal xaslati la leen alal xaslatil ula ca raxas bu njëkk ba baat boobu de am na am na bu yàq ku yor alal darbatil ula na ko na ko bàyyi xel alal xaslatil ula ca raxas bu njëkk ba waaw darbati lañ alal darbati lañ fi bind alal xaslatil ula la dolliku ca raxas bu njëkk ba maanaam cër yi dañ leen di raxas cër yi dañ leen di raxas benn bu ci nekk ñetti yoon lañ koy raxas bu dee sëlmu dañuy sëlmu ñetti yoon bu dee loxo dañuy raxas ñetti yoon tànk dañuy raxas ñetti yoon benn yoon bi mooy farata yonente bi alayhi salaatu jàpp na benn benn jàpp na ñaar ñaar jàpp na ñett ñett waaye weesuwu benn yoon bi mooy farata leneen lu ci tege ngëneel la am nga tuyaaba maanaam bonus la boo xam ne nii dañ la koy dañ la koy jox kon la dolliku ko ci raxas bu njëkk ba azaidu la dolli ko alal xaslatil ula ci raxas bu njëkk ba loola ngëneel la fan fil wajhi ca kanam ga wal yadayni ak ñaari loxo ya kon kañ lay nekk ngëneel mooy na fekk ne raxas bu njëkk ba li ma li war a mat mat na mooy cër bi tooy na ci raxas bu njëkk bi bu fekkente ne cër bi da nga raxas benn yoon cër bi tooyul wala am lu tooyul amagoo farata de amagoo farata bu raxasub ñaareel bi ñëwee mu doog a tooy yaa ngi doog a am farata ñetteel bi benn ngëneel nga am bu fekkee da raxas benn yoon tooyul nga raxas ñaari yoon tooyul ñetteel bi muy doog a tooy bu boobaa farata rek nga am amoo ngëneel kon moo tax nit ki war a sonn ci buy raxas ab cëram mu sonn ci pour mu tooy yoon bu njëkk bi mu tooy ca la ca topp doon ngëneel mu am ca tuyaaba xanaa nit nag lu mu lu mu wax dëgg yàlla lu mu lu mu yamba yambare yambare nag bu raxasee ab cër ab loxo ku ko raxas ñetti yoon mu war a mën a tooy xanaa yaadu na kon bu xasee ba tooy ñaari ya cay dolliku loola ngëneel la wala benn ba cay dolliku ci moo xam muy ci xar kanam gi moo xam mu ci loxo yi wal bidaayatu ak tàmbulee tàmbulee bi mu muqaddami rasi ca njëlbeenu bopp ba njëlbeen bu ñu nee njëlbeen rek mooy la jiitu mooy commencement njëlbeenu bopp bi mooy la féete kanam loolu bu ñu koy wax mooy lan ci masaa masaa bopp buy masaa bopp mu tàmbalee ci ci kanam bañ a tàmbalee ci boor yi wala mu commencé ci gannaaw dañoo bëgg mu tàmbalee ci kanam njëlbeenu bopp bi mooy fii kawar gi commencé saxee ci kanam mu tàmbalee fi jëm ca gannaaw loolu da ciy dégg ne kon bu ko defee woon neneen ndax masaa masaana masaana boppam baax na bu ko defee woon neneen bu fekkoon ne daa tooyal ay loxoom daa ne nii baax na masaa bi baax na parce que li bëgg mooy na masaa boppam waaye defin wi nag defin wi defin wi day day day ngëneel respecté defin wi loolu ngëneel lu rëy rëy rëy la luñu ñu sopp la lu nit ki war a sàmmoonte ak moom mooy buy masaa boppam mu tàmbulee ci njëlbeenu bopp bi jëm gannaaw ba ci ndong gi mu dellu si waat ba fi mu jóge fi mu déparé woon loolu ngëneel la ci ngëneel njàpp yi wa tartiibu sunani ak toftale sunna ya jàngoon nañ tartiibul faraid ba ñuy jàng sunnay njàpp toftale faratay njàpp yi sunna la toftale sunnay njàpp yi ngëneel la wa sunani ak toftale sunna loolu ngëneel la wa qillatul maa i ak néewug ndox ma wala néewal ndox ma néewug ndox ma alal udwi ca ba cër ba muy raxas bu mu jëfandikoo bu mu yàq ndox maanaam na néewal ndox ma muy jëfandikoo ci njàppam bañ a yàq ndox yeneen bi alayhi salaatu daf nañu de leen sakkan kuy jàpp ci na ko na sakkanal ndox même bu fekkonte ne sax dex ci dex lay jàpp dex dex ndoxam dex xam nga jàpp jeexalu ko waaye buñ ne laa booy jàpp ci dex sax nan nga ko sakkanal mooy jullit daa moomul yàq jullit daa moomul yàq waaw te bis bu jafee rek nga yëg ne bis bu ndox jafee loo yor danga ko sakkanal loo yor danga ko sakkanal kon nag bu yombee itam bàyyil xel loolu kon néewal ndox mi ngay jàppe waxuñu ngottu waaye jëfandikoo lu jaadu loolu lañu wax wa taqdimul yumna ak jiital ndeyjoor alal yusra ci càmmooñ bépp cër booy raxas mu nekk ñaari cër booy raxas aleykum salaam nga njëkk a raxas ndeyjoor nga jiital ndeyjoor doog caa teg càmmoñ nday jooru dafa am solo lool ndeyjooru dafa am solo lool sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha dafa ne yonent bi ndeyjooru daf ko daf ko daf ko neexoon daf ko yéemoon ci lépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndey jooru daf ko yéemoon ci lépp daf ko neexoon ci lépp moom la daan bàyyi xel ci léppam nee buy solu ndeyjoor joor lay jiital moo xam day sol yéreem moo xam day sol dàllam ndey joor lay njëkk a sol buy peñewu sax côté ndey jooram lay commencé buy watu côté ndey jooram lay njëkk a lañu njëkk a wat ci lépp nit ki buy dugg na jiital tànku ndeyjooram buy génn na jiital tànku ndey buy génn këram nag jiital tànku ndeyjooram buy dugg ci jàkka ji na jiital tànku ndeyjooram buy génn jàkka nag na jiital tànku càmmoñ dugg ci toilette na jiital tànku càmmoñ buy génn ca toilette bon na jiital tànku ndeyjooram hmm? kon loolu dañ ko bàyyi xel bu baax a baax buy solu ndeyjoor lay njëkk sol buy summi càmmoñ lay njëkk a summi ndeyjoor moom la ñu njëkk sol moom la ñu mujj a summi moo xam tànk ndeyjoor la moo xam loxo ndeyjoor buy sol yére kon loolu ngëneel li ci ngëneel la ci njàpp mooy jiital cërub ndeyjoor bi loxo nga jiital loxo ndeyjoor tànk nga jiital tànk ndeyjoor bu dee yi ñuy masaa nag dañ koy defandoo benn yoon doo masaa nopp ndeyjoor doo ko wëlbati ku ñëw masaa nopp càmmoñ da koy defandoo lépp lu ñuy masaa rek benn yoon lañ koy defandoo moo tax ki sol ay sang di ci masaa du masaa benn tànk ñëw di masaa benn tànk déedéet benn yoon la koy defandoo lépp lu ñuy masaa dañ koy defandoo benn yoon lépp lu ñuy raxas dañuy jiital ndeyjoor doog cee teg càmmoñ bu fekkee ñaari cër la wa yajibu day war taxliilu asaabiil yadayni xaliil baaraam yi ñaari loxo mooy xajji leen xajjale leen ba ba mu tooy xajjale leen jubluwaay bi nag du jëmmi xàjjale gi waaye jubluwaay bi mooy tooy tooy boo ko xàjjale woon te tooy it defoo liñ santaane kon dañoo bëgg mu tooy wa yustahabu xalil googu nag dees koy sopp dañ koo sopp fi asaabi rijlayni ci baaraam yi ñaari tànk bu dee ci ñaari loxo nee na dafa war waaye bu dee ci ñaari tànk bali xàjjale baaraam yi ba diggante bi tooy ndox mi àgg ci nee na loola dañ koo sopp kon ci ngënee li njàpp lay bokk wa yustahabu def na ko sopp fi asaabiin rijlayni bu dee ci baaraami ñaari tànk yi wa bu day war tax lii taxliilu lixyati xaliil ab sikkim alxafiifati bu wayaf ki nga xam ne ni sikkim boo xam ne nii boo ko xooloon tey di seen kawar gi ah kooku sikkim boobu bu boroom dee jàpp der bi daa war a tooy da ko day dugal baaraamam ci biir ba der bi tooy bu fekkente ne sikkim bu woyof la day doo commencé sax sikkim sikkim bariwul kawar kooku day dugal baaraamam day dugal ay baaraamam ci biir ba der bi tooy der bi daa war a tooy kon loolu day am fil wudu i ci njàpp bu fekkee ci njàpp la duunal kasifati walif sikkim bu dëll bu dee sikkim bu bari kawar nag kooku moom jéggal nañ ko loolu wax dëgg yàlla jéggal nañ ko loolu ci njàpp njàpp lañ wax de waaye wa yajibu day war taxliiluha xalil ko ba der ba tooy fil xusli ci ci cangaay walaw kaanat donte sikkim ba dafa nekk kasifatan di lu dëll parce que cangaay moom sangu farata moom der day tooy deru yaram wi dafa fépp a war a tooy moo tax bu fekkente ne kawar daf fee dox du tee der ba na tooy der ba dafa war a tooy der bi dafa war a romb euh, ndox mi dafa war a romb kawar gi àgg ci der bi moo xam muy bopp moo xam muy sikkim kon loolu mooy li aju woon ci faratay njàpp ay sunnaam ak i ngëneelam xam naa ne taxaw foofu insha allahu taala ba beneen yoon ñu ci yi nga xam ne ñooy yàq njàpp mooy nawaqidul wudui hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala wa sahbihi ajmain subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk yéen ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran